mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaine bi de jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon Ismaïla Madior Fall daal dinay publier rek ab note jëm ci annulation bu décret conseil supérieur bu magistrature bi nga xam ni kon bëgg nañ koo def te njiitu réew bi fi nekkoon daal di koy tekk mu mel ni loolee wax na ci mu ni kon mënuta nekk nomination boobee mënuñu cee dellu ginnaaw benn yoon ndax nag buñu sukkandikoo ci moom mu ni loolu buñ ko defee rek kon day fekk ni li nga xam ni moom la ñu defaroon rek ci première bi ak itamit la ca topp dana nekk rekk lu doy waar te itam rek kon dana yàq li nga xam ni moom nag mooy yees ci liggéey bi ñu soxla jëm ci gardien bu constitution bi nga xam ni war nañ koo teg amaana kon moom du mën li nga xam ni rek moo fi nekkoon wala itam rek li nga xam ni moom lañu fi war a def ci ay information euh, ba tey mu jàpp ni kon décret nomination bu premier président bu cour suprême ak membre maanaam pôle bi nga xam ni moo bootu ci ginnaawam euh, boobee nag moom rek ki fi nekkoon moo ko fi daal di teg te loole bu sañoon kon ñu daal di koy wëyal ndax jàpp na ni mooy ni nga xam ni rek moom mooy li gën waaye itam mooy rek euh, jubal mbir mi ba du ko yàq jëm nag ci li nga xam moom lañu weesu itam di tàbbi ci leneen loo xam ni lu yees la ginnaaw rek décret bi nga xam ni rek bokkoon na ci njiitu réew mi mag yi sàll laata ñaari fan ci weeru avril. atum 2024 itam ñu jël yeneen dogal yoo xam ni day rek indi gàllankoor jëm ci wàllu constitution bi. ñu daal di wax ci tàggat yaram lu ñeel kon Idrissa Gana géey moom nag ñu ñuy xamal ni kon clubam bi di Everton ñooy xamle ni kon moom champion sénégalais bi nga xam ni ma ngay joué ci bile club lu jëm ci fanweer ak ñaareelu bëcëk bu première ligue bi nga xam ni daan nañ koy tàmbali tey ci samedi bi jëm ci programme match yi nga xam ni ñu ngi koy daal amal mu nekk match yu am solo entraîneur am bi maanaam ki leen di tàggat di Sayan Dietsch moom mu daal di rek publier lu jëm ci composition équipe bi di xamle ni Idrissa Gana Gueye teewewul match bi blessé wul maanaam amul gaañu gaañu li ko waral mooy rek kon soxnaam dafa am rek doom. tey ci guddi looloo waral nag euh, fi mu nekk ni kon fekkewul match boobe moo tax nag kon absence am daal di feeñ rek jëm euh, ci match bi muy xamle ni kon dafa rekk am tout tànk euh, di ko ñana rekk fi mu nekk ni yàlla rekk daal di koy jàppale ba mu rekk nekk ci jàmm moom soxna Sile ginnaaw rek bi nga xam ne ni am na rek tout tànk looloo waral kon tey jilee eh, fekkewul match bi loole nag la kii nga xam ni moom moo koy tàggat daal di xamle eh, ca compte X bi di xamle ni nag ki fi nekkoon joueur bu Paris Saint-Germain loolo waral kon tey fekkewul match bi.